bisimilahi rahmaani rahim. sëñ jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen tatagal ci bis bi bis bi di ñaar fukki fan ak benn ci weeru sattumbar bis bii di màggal jëf ji nga xam ne suñu wasila suñu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba defoon na ko ci géej gii bi ko noonu yu yóbbu ci àll ba bi yoon la doon fukki yoon ak juróom-ñett ñu di ko màggal ah, liggéey bi li ngeen ko gisee ndam am na ci allah kulli al waaye ndam li mi ngi juddoo ci ay jafe-jafe jafe-jafe yu bari macha allah waaye nag liggéeyal ku mel ne Cheikh Ahmad jàpp naa ne bu dee dëgg ci yow maanaam boo ci seetul sa bopp seet yàlla ak ki ngay liggéeyal moom ci boppam moo lay fay te wér na ma wér yàlla ne. bis bi li ko coloré li ko toll nii du kenn ku dul Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wax ji ku tedd ka Cheikh Saliou Mbacké yal yàlla yokk leeram moo ñu ko waxoon maa ngi koy wax léegi ci ay rajo dem nañ toog sëñ Demba ngi nii sëñ Cissé Mouride ngi nii ñëpp ñu toog sëñ Babacar Mbaye mu ne ana waa géej gi ñu jege si mu ne yéen de nattabli ne am ngeen ngërëmu Sëñ tuba kon nag loolu ku toll noonu wax jëf ju toll noonu la ca des nag ñun rek la suñ fit la fu ñu mën a def fu bëgg a yegg rek mën nañ fa yegg ah, ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ndax liggéey bi liggéey sëñ bi la te liggéey bi sëñ bee ko liggéey waaye nag am na ñu ci jàpp maa ngi door di tàmbale ci ni ko sëñ Demba waxee léegi sëñ Fallou mu sëñ Abdou Khadr Mbacké sëñ Fallou ñun dey war na nañ laa sant di la sant te duñu def lenn lu la sant la waral ñu war laa sant di la sant te duñu def lenn lu la sant mooy dangay doon li nga doon ba pare lu rëy loolu maanaam moom mooy imam mu bu Touba waaye loolu charge boobu rek des na doy na waaye terewul dafa ne julli géej gi saa yu amee incha allah rabbi maa koy jiiti si kon nag Mbàkke loolu rek nga ñu mën a defal te ñi ngi la ci sant bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd ñu ngi lay ñaanal loola nga xam ne mi ngi woon say wéyjur mu yegsi ci yow. ñun dey waa julli géej gi day nga ñu ñun doy nga ñu ci imaam ñi ngi sant bépp ahlu Mbàkke boo xam ne ànd nañoo jëmm ji suñu imaam ñëw ci bis bii koloore suñu bis bii ah bu ñu santee kii nga xam ne mooy suñu imaam mooy suñu lépp war nañu mën a santit kilifa àdduna gi nga xam ne moo fi teewal président de la république muy monsieur le ministre de la culture monsieur le ministre de la culture ñëw nga ci espace boo xam ne espace culturel maanaam diine la waaye boo xoolee ba ca biir caada moo ko nal mooy la culture xam naa da nga am occasion bala nga fiy jógee nga ànd ak suñ mag jooju ñuy wax Khoudar Sylla ngeen ànd ngeen visiter mbaar mee nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul moom moo ñu mën a yóbbu ca yàlla waaye nag moo mën a saytu suñu aada suñu culture ci politique ak ci jëf boo duggee fee da nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba amul morom xam nga ko sax ndax taal yooyu ñi ngi lay sant bu baax monsieur le ministre amuñu benn sikki sàkka ñëw fii nga ñëw fii bàyyi nga lu bëree bëree bëri pour ñëw fi rek sa conseiller wax na ma ko na fan yi da ngaa ne ci xat-xat da sax ci avion waaye am nañ yaakaar ne boo ñëwee da nga yegg kon na ne buntu bu buntu boo ubbi la boo xam suñ borom dana la ci jàppale bu baax da nga am ndam na la suñ borom jox ndam bi jaay Cheikhul Khadim Moustapha ah

jël ay nitam lépp mu dugal ko ci màggali julli géej gi kooko de kam xam nga ne institution bi da xam ne ne sëñ bi julli na ci géej gi danañ ko gërëm waaye danañ gërëm it le maire de Dakar maire de Dakar doon na suñu partenaire partenaire u màggal gi 1996 la mairie Dakar tabbi ci màggal gi ñu ne garanti woon ne at mu jot luñ ci mën danañ ko def waaye ñooñe ba ñu demee it ñu bees yi bi ñu dikkee waxuma ne dañ koo dër sax waaye dañoo yokk seen loxo kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen bàyyeek borom bis bi Cheikhul Khadim la ngeen bëgg yéen a ko xam ci réew mi la ngeen bëgg yéen a ko xam seen commune yal na leen suñu borom jàppale loolu maa ngi koy wax.

Mbaye Ndiaye partenaire la bu baax membre la sax mën nañ la ci kuréel bi at mu jot da daan teew te at mu jot mu yëkkati participation bu am solo dugal ko ci biir moom moo xam la mu bëgg ci barke bis bi yal na ko suñu bi wax na incha allah ñi ngi gërëm taalibe yi taalibe murit yi jullit yi sénégalais yi ndax fii kenn mënut a garanti rek ne mbooloo mi yëpp ay taalibe murit rek lañ. mënuñu garanti de mbooloo mi yëpp ay jullit lañu waaye mën nañ garanti mbooloo mi ñëpp ñu sopp sëñ Touba lañ te gëm nañ ne jëf ji sëñ bay ko def loolu mën nañ ko garanti kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanalit li leen fi tax a ñëw suñ borom dagane leen ko ba ngeen jot ko ah du ma daane sama kàddu te waxuma yóbbal bi naka jekk bu ma taxawee fii ma ne taalibe di dongo am daraja ji maqaama mi barke bi di wax ak adduna dañ maa yónni dañ maa yebal ki ma yebal nag ni ma koy faral di waxee mi ngi fii ci biir mbooloo mi mu ngi toog ci suuf mi ngi toog ci suuf di président màggalu julli géej gi ñu koy wax Aline Badara Cissé ki ma yebal it mooy ci wàllu jigéen ñi soxna Sooda Xumma moom moo yore ji wàllu jigéen ñi moo ne fële kon nag ñaar ñooñu mën naa ne ci seen kàddu laa waxe tey wax ji lu ci manqué ngeen xam ne man la waaye du ci jëmm ji toog fii si suuf duma jeexal it te santuñu presse bi dama koy wax bu ñu amee màggal gu toll nii nga xam ne adduna yëpp a gi ji suivre dëgg la Pastef fu kuréel bi la loolu wér na waaye nag presse bi am na cër bu rëy bu mu ca def presse national public ak presse privée kon nag sëñ bi ak membre kuréel bi ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah sëñ bi sëñ fallu ñi ngi bëggoon ñi ngi daan dagaan ci sa jëmm nga ñaanal bépp bokk boo xam ne nañu ak moom ci liggéey bii te suñu borom def la gën ca ñoom du jar ñuy lim ndax am na ci ay membres yoo xam ne yu jege woon lañ ay borom Pastef lañu woon jàppale nañ ci bu baax a baax a baax am na ci ñoo xam ne itam ah ci biir taalibe rek lañu amoon seen pas-pas ak seen doole di ko indi te yàlla def li gën ci ñoom suñ maa ngi ñaan suñ borom maa ngi sëñ bi boo ñaanal nga jiital leen ci ñaan di ñaan ñaanal dana ñaan nga ñaanal Sénégal mhm. ndax lii itam bu mu nee ne jàmm fi am rek boo muy ne nekk jàmm fi am kon nag euh, mbakke ñaanal réew mi jàmm ñaanal suñu wàll gee di Casamance jàmm jàmm ndax islaam jàmm la wax te yoonu Cheikh Ahmad Bamba jàmm la wax te yow ku la xam-xam ne jàmm ko wax du ma du ma jeexal ci dëkkandoo yi dëkkandoo yi lu am solo la ndax ñi nga xam ne ñi ngi ñuy wër dëkk fii ah léeg-léeg du ñàkk ñu derange leen waaye ñooñu maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di ñaan ci turu jëmm ji toog di Sëriñ Bass euh, euh, Alioune Badara Cissé ngeen jéggal ñu bépp jafe-jafe boo xam ne bépp coono boo xam ne teg nañ leen ko waaye bu ngeen ñu ko jéggalee ba pare nag ñu ñaan sëñ bi ñaan lépp luñ fi am ñu bokk ko ñun ñëpp ñu bokk ah. la ma li may sama mooy sama sama kàddu fi may daane rek mooy li ñuy faral di wax te mu neex ma Macky Sall président de la République du Sénégal Nous ñuy def congrès d'investiture ku ne fala doy nga def ko moom mu xool ba ne ñuy gi moo doy mu daal ñëw waxtu def liggéey bi fii kon loolu sëñ bi seere na ne bërëb bii ne ko ñeneen waxe woon ñeneen ñeneen bërëb bi liggéey biñ fii liggéey nangu nañ ko kon nag la ma ci bëgg wax rek mooy mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi dafa wóorul dafa gënul bis bu toll nii di 21 septembre tàkkusaani 21 septembre nga ne ci leneen lu bàyyi la ñëw ànd ak sëti Cheikh Ahmadou Bamba bii ngeen julli julli ji lii rek firnde la wan ne julli gi lu mat ak kenn waru ko uute ñëpp ko war a asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh